Senevision.com la crédibilité notre credo. Senevision.com wóor la ñuy tëggoo. kumpa tàggoon ak yéen. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat ci Senevision.com di am mbégte mu yaa ngir ànd ak yenn saa su nekk ci seen émission leerlu ak alxaaji Serigne Malick liggéey faccatu cosaan. nekk ci diwaan bu Dakar Grand Dakar ci fi ñuy wax cosaan waaye ci tuubaay it muy nekk fi nga xam ne moom moo di ci Madiana Ciss ci këram ci ginnaaw kër sëriñ Serigne Sidi Maxtaar Mbàkke gi moom la ñuy àndal saa su nekk ngir mu ñuy waxtaanal ci meññen teef bi nga xam ne sunu borom moom moo ko wàcceel doomu aadama waaye ñu bari am lu ñu ci umpale moom nag sunu borom may ko ci lool ci kàddu gi seen bokk Arona Cissé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 mbokk yi gannaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonte bi di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan sëñ Arona ñu ngi lay dolloo am nuyoo di leen wax ne waaw waaw comme noonu mu ko waxee rek ndax àdduna moom laa birante rek ci am solo kon seen émission bii rek ngeen koy far di topp ndax lépp njariñ la tey nag Arona noonu nga ko waxee waaye damaa gis ngay tooñ maam Thierno rek ci benn jabar waaw <laughs> xam naa ne maam Thierno comme mënta addu man dama koy addu rek maam Thierno nee na ndax yow ñaari jabar nga yor wala benn jabar nga yor <laughs> mbokk yi kon gis ngeen ko. li li mu wax am na solo tey xam-xam bi mi ngi jëm ci ñu waxtaanee li nga xam ne mooy ceeb. mi ngi noonu ngeen di jàkkaarlool. ci écran bi loolu ngeen di jàkkaarlool rek. Mm-hmm. comme ngeen gis ne. Mm-hmm. melokaan boobu ragal naa ne ñi ko xamit bari na ndax cepp moom dañ koo tuumaal jigéen ñi rek jàpp na jigéen ñi donc moom aw waaye samba cepp waaw xam nga fi ne ñu bari jàpp na ne maanaam garabu jigéen la cepp waaw mooy yi ne ci biteel te koy def ci ndox ndox mu ngi neexal ndox mi xam nga nit ñi loolu lañ ci xam da ngay gis ñu koy teg ci néegit noonu waaw xam ci ëpp da gis ne maanaam dañ koy def ci mm-hmm. ndox mi ngir di ko naan di ko di neexal ndox mi mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. waaye léegi. mbokk yi. ñu waxtaana ci ay point tuuti rek pour nit ñi mën ko bàyyi xel. ndax njariñ li mu am. yamul rek ci jigéen. yamul rek ci jigéen ko war a jël. góor waru koo jël déedéet. ñëpp ko war a jël ci doomu aadama rek baax waaw mhm. ci nit rek la baax. Mhm. mu moo tax mu ne téere bi wax na cepp nag lu baax lool la. Mhm. moom nag góor da koy jël jigéen da koy jël comme ni ma la ko waxee. mu ne lu baax la. première baax bi moo ne lu baax la ci deret gis ngeen garab saa bu tëbee tëb attaqué deret rek bàyyil xel garab googu. Hmm? moom nag salaamaaleykum maaleykum salaam rek mu ngi. daal di jawlee direct ca dara waaw gis nga ko. Hmm. yéen borom xam-xam yi nga xam ni yéen a ngi seetaan li may wax yéen a ma a xam. Hmm. mu ne da koy lan daf koy raxas. moom ceeb day def lan day raxas deret. te lépp loo xam ne aaroon na day raxas deret. xam nga ne baax na. moo gën lu koy tilimal xanaa. waaw waaw waaw. luy raxas dee gën luy tilimaan. jeex na <laughs> kon jeex na da koy raxas nag ba mu set lool. Mm-hmm. moom nag day day xeex lu jëm ci tànk yu yu yu yu diis loolu nag mu nga ëppee ca jigéen ña. Mm-hmm. ak mag ñi waaw ak mag ña. sama tànk de day daa diis. moo tey tànk yi day diis. Mm-hmm. gis nga ko waaw moom ceeb moom kon lu ci baax la. waaw waaw. tànk yuy diis. luy indi tànk yu diis rek moom da koy xeex. bokk na ci tam maanaam. deret ji bañ a circuler. deret ji taxaw dem waaw. nit ki deretam bañ a bañ a bañ a bañ hmm, bañ dox bañ a dox. Hmm. ceeb da koy naan ko doxal. <laughs> waaw ceeb baax la ci. ceeb day doxalal deret. Hmm. waaw moom nag lu baax la ci euh, feebaru xol. feebaru xol. waaw feebaru xol man xeetu feebar. waaw feebaru xol nag wala rek. feebaru xol dafa yaatu waaye daal. <laughs> Eh. li tubaab tuddee sa vague daal. moom daal euh, moom cepp bi mhm. euh, baax na ci feebaru xool mhm. bu ko dee jël du am feebaru li nga xam ne mooy feebaru cardiaque mhm. hmm? ki nga xam ne koy jëfandikoo doo mës dégg ñoo dafa amee feebaru cardiaque mukk hmm? waaw moo tam day aar nit ci feebar bu baax a baax a baax cep mii mu ngi koy répété waat moom téere bi mi ngi wax ne dafay sécuriser doomu aadama ci tawat hmm? waaw kaaraangeel doomu aadama kaaraangeel doomu aadama laaw ci sayir waaw ah, waaw préva maanaam li wax prévention la bu hmm. am doole hmm. waaw moom nag boo ko dee jël yàlla mën na laa dimbale jabet pour mu am ci yow day jafe nga xam ne hmm. boo ko daaw dooni ndox moom boo ko dee naan pour ñu ne la kii ka dafa suukar mën nga ko yéex a dégg moom ceeb moom ceeb kon ko amagul jabet te bañ a jabet waaw kay del jëfandikoo ceeb même boo ko amee sax mën nga koy jëfandikoo day ndax day day doo waaw day néewal doole mm, suukar si suukar si waaw moom nag ñi am problème mu régal surtout jigéen ñi kon jigéen ñi ah, moom lay waxal gis nga ko ñi waaw moom yéen jigéen ñee ko moom waaw ñi am problème mu régal ah. nga xam ne duñ gis régal wala mu mu bloqué mm, jafe ñëw ñëw gi jafe waaw ñëw gi jafe góor a waay mm-hmm. ñëw gi jafe <laughs> lu am solo ngi noonu. waaw ñëw gi jafe lool. lu ci baax la. ba tey ñi am problème mu bopp bopp bu bu bu maanaam buy metti ndax da gis koo xam ni da wax ni dem naa hôpital. def naa cuuraay sàngam nangam nangam nangam. waaye métti bopp bi dafa métti bopp rek waaw. digg bopp bi léeg-léeg waaw waaw. waaw léeg-léeg bopp li. waaw muy wax ak yow nag ci wàllu stress. stress nag maanaam dafa am stress su saayir ak stress su baatin. moom nag dalay dimbale ci stress bi nga xam ne moom mooy baatin bi mm-hmm. waaw lu ci baax la ba tey lu jëm ci feebaru tuur ndox mm-hmm. moom mi ngi ci wax ak yow lu ci baax la mm-hmm. ak wàllu ko amee jafe-jafe waaw ki amee jafe-jafe tuur ndox muy metti waaw ndax gis nga koo xamante bi naa da buy tuur ndox day fëgg pooj bi ndax metti ndax metti ak ak ak ak beneen bi nga xam ne moom la arab di wax mu waswisu nga xam ne. waaw léeg-léeg dafay day kii ba pare muy toq ak. xeetu toq waaw kay. xam nga loolu lépp mu ngi mi ngi doon jafe-jafe mbuus. Mhm. jafe-jafe raakool jafe-jafe waaye loolu lépp rek mi ngi lay joxoñ rek li nga xamante ni mooy garab gii mu lay wax. Mhm. waaw mu ne ki nga xam ne am na jafe-jafe tuur ndox lu ci baax la ak wàllu prostate. prostate waaw ndax jafe-jafe tuur ndox moom. bu nee la yaa ngi koy commencé am rek mooy un plus un égal deux mooy prostate la jëm. prostate la jëm kon fële la joxoñ mhm. ba te lu jëm ci feebaru yi mhm. mun a feebaru noyyi itam garab gi ndekke lu ci baax la. Mhm. waaw ni ko waxee woon ci. garab gi paase muy tàndarma kon kii ñëwaat na ko feelu ko ci wet gi. ndax gis ne kon garab yi dafay am lu ñuy bokkale. tout le temps mu ne kon ki nga xam ne dafa am feebaru nooy lu ci baax la. ba tey mu ngi ñuy waxaat ne ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe sinusite mm-hmm. sinusite nu ko olof la tuddee. boobu de baax na ci man. waaw nga xam ne di li mën naa tënkoon. waaw war nañ ko jukk ni. waaw jukk ni mën na sinusite. waaw eh, di di ñand bu bare sa sa bàyyi daan na wax bàyyi ma sama olof yow laa bàyyi olof yi. <laughs> jukki su ma bëggee dugg si doom mënoo déet déet déet déet bàyyi maak samay olof <laughs> yàlla na yàlla yërëm. kon dina la dimbale ci wàllu sinusite. Mm-hmm. waaw ak ay mbokkam. maanaam lépp loo xam ne day day day day day indi sinusite rek ak mbokk ya nekk ci ginnaawam mhm. ndeke moom mii dala ciy dimbali moom ceeb mhm. waaw ak ñi am xeer yi nekk ci ci ci rein yi mhm. suñ ko waxee loolu mooy lan mooy ñi nga xam ni seen deret ji dafa way def ay donji xeer am na am na nga gis ne seen deret buñ ko xoolee dafay am ay wogg di olof di tuddee woggu yu nekk ci waaw deret ju am woggu waaw deret joo xam dafay am ay woggu te loolu nag ñaari foo gisee ci nit rek bu ko yëgee bu ko yëgu tawati nga koy waaj songu nee na kon ceeb mi lu ci baax la mm-hmm. waaw kon mi ngoog gis nga mm-hmm. mu ne mu ñëwaat tam ba ci mm-hmm. ceeb da lay dimbale ci tànk yu ruux tànk yu ruux waaw yu ruux fee gis nga ko dana lay tànk yu jamonoy sedd bi voilà nee na yu ruux kon ceeb dala ciy dimbale. su ko defee itam jigéen ji nga xam ne kanam gi maanaam day wow feebar la. ceeb moomee dala ciy dimbale. jigéen ñi nga xam kanamam day wow nga xam ne. mooy waral buy buy buy sëy muy méttee. muy metti voilà. moo ñëw ba ci maanaam mm, jëkkëram du yëg bànneex wala moom du yëg bànneex. loolu da feebar la. moo tax lu ci ëpp ñu defe ne maanaam ceeb bagaasu. Euh, jigéen la mm-hmm. te fekk parce que li muy servir jigéen dafa bari ndax boo xoolee lu ci ëpp jigéen ñi mm-hmm. dañ koy dan am na am na lu ñu koy boole waaye àggaguñ ci loolu dañ ci ñëwee mm-hmm. xeeti gooye gi ci aju waaye àggaguñ ci loolu damay bañ waaw <laughs> su ko defee am na loolu ñu koy booleel di ko def seen kanam di ko siwoo voilà waaye gis nga jëmmi naan gi rek mm. maanaam foo ko takk ci baax baax paas na ko euh, li ci nekk nag ci ay njariñ mm. xel mën na ko tudd waaye nag day jafe. Mhm. waaw ba tey ñi am problème mu palpitation. Mhm. lu ci baax la. Mhm. palpitation nag bu ñu ko waxee. olof mu ngi ko tuddee lox. ki nga xam ne dafay lox. dënd bi di rëf rëfi. mel ni ku tiit. naan kat kat kat waaw yooyu mooy palpitation. ak lu jëm ci euh, maanaam euh, piccu kanam piccu kanam mooy. waxuñu kanamu suuf gi waaye kanamu kaw gi. nga xam ne seen. picc xar kanam waaw xar kanam. Mhm. maanaam lu ci lu ci baax la lool. Mhm. waaw mhm. da koy rafetal ba tey day rafetal kanam boo ko. day pour boo koy naan daal. boo koy naan waaw. waaw day génne tooke ba tey. tooke mooy euh, comme ni nga ko xamee mooy toxicité ci tubaab. moom boo dee jëfandikoo nag tooke ji de daal di ànd ak saw ma génn di génn dégg ko lu baax la ci jigéen ñi am euh, per maanaam perte blanche. perte balance nag jigéen ñaara la koy indi ca moom bokk na jigéen bi nga xamante bi ay yéreem du gis cant te mu tayeel du du du nangoo paase. Euh, surtout keloot yu yay tafe ca moom. perte balance mooy tolloog la raxet. waaw mhm. moomu kon. Mhm. ndekkee lii baax na ci kon jigéen ñi ngeen bàyyi ko xel. Mhm. waaw. damay bañ nag ñu perte yeneen yi ndax sama. technicien bi nee na ñaari. waaw kon dañuy dañuy dañuy tënk foofu dañuy tënk <laughs> foofu. Mhm. ndax li ci des dafa bari. Mhm. waaye lii ngeen jot a dégg ngeen bàyyi ko xel. Mhm. bu ko defee bu ëllëgee ñu àggalaal yeneen point yi. ana noo koy jëfandikoo yi nag. Euh, ndox mu sedd mi ànd ak ceeb bi gënul. ndox normal. bañ koo dugal ci frigo. mu doon ndox normal kese. moo gën. bañ koo seral bañ koo seral. bañ ko dugal ci frigo muy sedd ka considère yooyu déedéet. Hmm. li gën mooy nga bañ koo dugal ci frigo xooj ko ci bidon bi. bidon bi nangu na tam baxal ndox mi ba mu bax nga xooj ko ci. Hmm. waaye seeral ndox mi def ko ci daal nangu. waaw gënut ndax waaw. ana noo koy naanee moom nangu na naan maanaam suba nangu na naan midi nangu na naan ngoon maanaam amul danse ji noo koy jëlee ak noo ko. du jëlee mën nga koo booleeg ndox mi ngay naan rek. mën nga koo ndox mi ngay naan. Hmm. góor gi mën na koo jëfandikoo. ku jigéen ki mën na koo jëfandikoo. waaye duñ ko toggaale ci dara de na waaw am na ñu koy def waaye ñun ni ñu ko xamee tamit faj. Mm-hmm. ci façon bii lañ ko xamee. Mm-hmm. moo tax te itam dina jox odeur jigéen mm-hmm. ci buy saw dina tax saw ma. maanaam du xasaw waaw bari na ñoo xam ne seen saw bu ñoo xam ne muñ duggee ci wan ak ba génn sëñ bi kon jaaw nga xaar ab diir waaw waaw dëgg la <laughs> ngir ngir la euh, waaw kii nag day raxas saw mhm. te day tax saw ma day day day day day mhm. euh, am ngatu ko kii mhm. su ko defee euh, ku góor ki nga xam ne daf koy jëfandikoo tam dina defar ferñeent yi nga xam ni mooy man yuuba man yuuba dina dina kàttanal man yuuba ndax bàyyil xel ne sakkanal ko mu bari bàyyi xel nag lépp loo xam ne dafa baax ci deret rek baax na ci góor ndax góor ñaare jafe-jafe bi muy am mooy bu deret circulé wul rek euh, tële daf ko yomb kon nag ceppoo ngi noonu bi ci gën itam mooy nga bàyyi ko xel ndax am na ci yoo xam ne dafay primé yooyu bis dina ñëw ñu mën a génne étapes yi nga xam ni moo baax ak étapes yi nga xam ni baaxul yi baax yomb na xàmmee comme nañ ko waxee woon ci lem ga waaye kon daal mbokk yi defe naa ne aruna mën nañoo bàyyi foofu kàddu gi ba beneen yoon incha allah di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala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 dëkk bi yëpp tàggoo nañu ci yoon a fan la ñuy jëlee soow mu baax ndax Cheikh Sow indi na solution bi Cheikh Sow ñëpp naan ko neex soow Touba gi yëpp ak li ko wër moom la ñuy wër Cheikh Sow neex soow soowam baax na set na te neex na boo amee xew soxla ci soow ak lu mu bëri bëri quantité boo ci soxla boo ñëwee ñu jaay la la crédibilité notre credo Senevision.com wóor la c'est une Senevision.com kumpa